jamono gi li ñuy nemmeeku mooy njàngum gone yi wute na lool ak bu njëkk ba rawatina ci seen làkkub kàllaamay nasaraan. qualité enseignement bi tey tey tey tey tey Sénégal doy na waar doy na waar même à l'université tu vois des yoo xam ni dégguñu tubaab et que c'est c'est scandaleux c'est scandaleux et daf lay daf lay jooyloo yow c'est que jàng daal nekkatul fa mu nekkoon au top. njàng moo gis dafa am. Euh, njàng mu njàng de qualité njàng de qualité moo amatul. rapport ak njàng mu njëkk ma xamante ni mag ñi dañ daan yem niveau CM2 di wax njàng di wax français yu leer nañ ay proverbe yu leer nañ nañ nañ. waaw mais léegi moom wax dëgg yàlla njàng mi moom sooxe na quoi. li ko waral nag bokk na ci ñàkk liir gi nga xamante ni seetlu nañ ko ci yooyu les xale. manque de lecture surtout parce que au fait euh, bu njëkk doo doon am comme par exemple euh, dans les écoles des bibliothèques. L'enfant, quand il a une pause, quand il n'est pas à l'école, il pour xam gestou, parce qu'au niveau ça s'acquiert. lecture, c'est très important, parce que la lecture, il faut transmettre savoir. Parce que quand l'enfant commence à lire, il s'intéresse à la lecture moo bu mu xam donc laaj loolu day développer culture. waaye nag bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu naam waajur yi am nañ ci wàll waaye ñi si ëpp ña ngay joxoñ baaraamu tuuma jàngalekat yi. ñaari côté yi la parce que aujourd'hui parent bu dugalee école doomam donc day désengagé du ko topp parce que moi je peux pas concevoir un parent inscrit doomam du ko suivre mais au fait il y a de la part des enseignants parce que au fait aujourd'hui les enseignants dañu dugg ci enseignement mais pas par euh, vocation mais pas par ambition bëgg ko mais dañu ci parce que pour pour pour sauver seen bopp. est-ce que professeurs yi jàngale sax léegi c'est des bons professeurs loolu la ñu war a wax. loolu mooy mën professeur boo ni amoo yenn niveau yi ñu fexe ba pousse la ba niveau école bu nga xamante ni euh, waroo ko yor xam nga am lu fa dugal benn branlon noonu la mën a demee. ci noonu ñu ngi ñaax jàngalekat yi ngir ñu xoolaat doxalin wi waaye itam ñaax waajur yi ngir ñuy bàyyi xel ak di surveiller gone yi ci seen jàng.